moo leen di may seen revue de presse. ñaan ni ci ak Alaaji Ahmed Aidara. bismillah. waaye yow ban politicien ngay xam tribune yéene kaay ne en tout cas waaw weer na leen démb de weer na leen démb de maar di taali waaw parce que nag atu yàlla ginnaaw kii nga xam ne mooy président Macky Sall day ak Abdoulaye ba ñu dajee nag ca Massalikul Jinaan ge waaw Mahmoud Saleh day nee na président Macky Sall ak Abdoulaye Wade juguñu di waxtaan la wax ñu ngi waxtaan saa su ne contact permanent la wax de waaw te loolee nga xam ne Macky Sall kon maanaam mi yi la ngir ubbi large de concertation yi la waaw yéene kaa ngi ne nag bu dee ay waxtaan doon am seen diggante day kon juboo moo ca amul waxtaan ba juboo amu ca looloo tax ba ay nitu Abdoulaye Wade day dugguñu ci biir gouvernement bu bees bi lée Mahmoud day waaw nee na Idrissa Seck président Macky Sall keroog ba ñu organiser élection présidentielle yi ba pare ba léegi ni lé eh, ñoom ñaar ñu ngi waxtaan é eh, waay Samba moom na Idi dama ne la directeur de cabinet wu Macky Sall bi lée ci tribune yéene kaay waaw nee na eh, la génération sacrifiée ci yéene kaay sax wax ci wàllum aju élection ba mu des kon Mahmoud Saleh naan fin 2021 bu dee da ngeen a bëgg ak élection yi ngir seen àndandoo yu bees yi gën a defaruwaat jekki-jekkal ak yooyee taayi leen ko taayi leen ko c'est peine perdue ah, waaw parce que dialogue national bi moom beetul kenn abundu sarale la woon rek ngir ñi xam ne kon maanaam dañuy wor di ay traître mar di tali daal di cay defaru porox ndollu daal di cay dugg Ismaïla li ñu leen bëgg xamal daal de ngir muy buur bi te ak a toroxal opposition bi réduire l'opposition à sa plus simple expression Macky Sall dañ koo fal ngir mu toroxal coono bi nga xam ne kon maanaam moom la nit ñi di dund réduire la souffrance des Sénégalais à simple expression waaw koy waay Ismaïla Kambi ne Macky Sall faluñu ko de ngir muy indiwaat nag màggat yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade gële déedéet waaye Macky Sall dañ koo fal ngir mu tasal ñu kon conseil économique social TER gi TER waaw mais dañoo war a kon liste ba mbir mi leer yéeni kas yi gi ne présidentielle ba day waaw Cheikh Oumar Anne daal dinay dëggal na mandat wu Sall yaa jum wala maa jum ministre enseignement supérieur ci Vox Populi waaw nee na Sall bu dee candidat la 2024 waaw boobooy nekk mandat parce mandat bi lée mënuñu ko cekonte Cheikh Oumar Anne day ci source a waaw nee ñi nga xam ne nee nañu 1300 bachelier 2019 kenn orienté wu yooyu kon dafa laluwul fenn le soleil yéene gi day def na fi ay giraawaali de ndax lu tolloog fanweeri junni ak juróom ñaar yu toftal ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent day ci ñoo xam ne dañ doon liggéey ñoo ñàkk seenu place su liggéeyu akbar ñoo ni may professeur Souleymane Bou waaw nee na day war nañoo waajal de ñaareelu vague bi ñaareelu corona kon amaat fii mardi tali ilaha illallah sursaane ay damboo day waaw yekk lu mel ni xamee Abdoulaye Diouf Sarr ci yéegaat ba ca foo docteur Samba Ndiaye cay ay dëmbu les ko yéene kaay ne en tout amaat na de député fi nekk nii ti lool waaye Abdoulaye Diouf Sarr ngay dalal xel ya ci corona bi ni mu commencé yéegaat waaw direct news de ah sénégalais yi kat dañ leen a bett Macky Sall yëkkati ci wàllum deuxième vague yooyu te Macky Sall sax léegi waxatul ak sénégalais de déet déet léegi daal ay tweetam la Twitter daal di koy sànni gars yi laa wax sénégalais nag Bougane Gueye Dany doon na ko amal ci àll bi day monde rural waaw njiital gëm sa bopp day nee na bi nga xam ne kon moom la opérateur yi nekke ni lée boo sàgganee day wàllum gerte gi ñoo ñoo ko nar a yàq maar di ne président Macky Sall ci boppam kon da caa war a dugal loxoom daal di intervenir loolay dëgg leese ko yéene ay jege ñaale sëñ Modou Kara Mbacké day li leen di yot nii neexul de parce nag dañoo gis ca bërëb ya nga xam a a peuple ne ndekete musiba a ko ma moo am ci daaraw sëñ Modou Kara yi lé day gis nañ fa lu doy waar ay ci ay ñoo xam ni Kara la ñu àndal day jàpp nañ leen te enquête ba sax nee na ay fukk-fukk ci ay doomu aadama day jot nañ faa dee inna lillahi wa inna ilayhi raji waaye staffu sëñ Modou Kara bi day daal la wax nii de te gendarme yi fa 43 personnes ñi Modou Kara nee nañu faruñ fa drog ci benn centre laa la wax ma jambal jaañ ne ci le quotidien waaye lii daf leen a bees amul lenn loo xam ni kon sëñ Modou Kara mi lé mook ay nitam nekk nañ ca te nguur gi yëgu ko amul ca jamono jooja les ko yéene kaay nee na Idrissa Seck day waaw Déthié Fall wee dina ko de waaw waaw parce que Idrissa Seck dafa a benn poste laa la wax du député du ministre du dara ci kanamu kenn nag laa wax yéene kaay gi ne mais xam ne saful yàpp saful jën laa wax parce que Idrissa Seck moo doon naqarlu muut mbaa motu gi te day iri moomee mooy def muut mbaa mot bos fa bi ne Idrissa Seck day liquide na Déthié Fall de surcote yéene idi kay dàq na Déthié Fall ca vice présidence ba critique yéene kaay ne kañ doon wax naan mooy dauphin ba dee lajj na ca jam ñaajo mooy Déthié waaw libération ne tey nag wax leen mbóot yi nga xam ne moo am ca conseil économique ale ndàmbalaak yooyu conseil conseil waaw balaa yokku gee am un yéene yokk ndàmpaay li way eh sa Idrissa Seck day ci le quotidien yéene kaay waaw nee na duma nangu mukk ñi nga xam ñoo nekk ci man naan dañuy jéem a kon critiquer président Macky Sall way eh samba la ilaha illallah dee ca li ko mooy li mu duggul ci gouvernement bi dee ca faal ne ko du dëkk Dakar Times te coowal Sarr ak Olinda ak yeewu Carmelo Robert Sagna waaw erreur bu rëy la inspection générale d'État def waaw yéene kaay gi

monde ci 2002 ah jë gaynde 24 heures yéene kaa ne Mamadou Lamine Massaly day la ñu koy tuumal ne Macky waaw daal dinay yóbbu ci kanamu tribunal bi lée waa APR parce que Massaly nee na X5 boobee ci benn commissaire de police la ko jëlee Mercedes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 Euh, lu yàgg ngi nii ñu euh, daal di rek euh, daal di maanaam daje li nga xam ni mooy camp détention privé bu ñu sukkandikoo ci gendarmerie lépp loo xam ni réseau la ci yoo xamante ni bii ay sàcc ak trafic chanvre indien ak yu mel noonu bu ñu seetee. bari nay eh, ay jéego yoo xam ne daf nañ ko ci nañ ci dellu ci eh, Déthié Fall eh, ak itam li nga xam ne moo tënk rek ci kàddu yi mu yëkkati woon ci assemblée nationale ngir ngàññi nguur gu Macky Sall ak aw ngàbbinam wax jaa ngay continuer ba léegi football nekk ci dëj bu doy waar bi fii ci Sénégal ak itam faatu Pape buba Diop mu nekk naqar ak tiis lu may loole xibaaru tàggat yaram Baye Ma Anta bu moo koy faram fàcce ci xibaar yi yéen kay lañ koy ndax keppeeg El Hadj Ahmed Aïdara salaamaaleykum ñu dooree xibaar yi ak décision bi nga xam ni jël nañu ko ci li nga xam ni mu ñu sukkandikoo ci gendarmerie mu indiqué li nga xam ni mooy euh, ay réseau yoo xam ni toj nañu leen mu di Samba Boy yoo xamante ni bi def na ko su noonu la ñu doon def ci ay gox mel ni ki Mamel zone B Guédiawaye Malika ci région bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci seeni ay responsable ci li ñu teg ci loxoy presse bi dem bi fële ci diwaanu Casamance am na ay camp de détention privé yoo xamante ni bi lu toll ci trois cent cinquante trois personnes nekkoon ci ñoom diggante âge 17 ak 43 ans ñoom ñëpp daal dinañu leen dañ leen a woon ci benn parti boo xamante ni bi mu ngi ci banlieue bi ñu daal di ubbi nag benn enquête waaye xam nañu ni itam ñoo réseau boobee daanañu def lu jëm ci sàcc ay scooter ak yeneen ak yeneen ñeen fukk ak euh, ñetti responsable yooyu nga xamante ni bi itam interpellé nañu leen ci wàllu drogue scooter yu ñu sàcc ak yeneen ak yeneen xëy na ci ay jéego yoo xamante ni bii euh, way takk der yi euh, def nañu ko euh, foofee ca diwaanu Casamance Abdourahmane Diallo mooy gën a yaatal xibaar bi. ci wàllum benn enquête bu scooter bu ñu sàcc moo yóbbu élément yu section de recherche bu gendarmerie nationale ba ñu démantelé bii les réseaux ca Wakam. dañu fa fekk tollu fukk ak juróom-ñett gone ñooñu fa ñu nekk dañu leen a tëj di leen toroxal. yeneen réseau yi ni mel jot nañu leen démantelé ci ay quartier yu bëri ca Ndakaaru porte-parole bu gendarmerie nationale colonel Papou Diouf. ñu dem ba Géejawaay dem ba Malika dem zone B ba nga xamante ne nii euh, fekk nañ fa ay gone ñoo xamante ne nii ci même toogaan. buñ koy xeema tollu nag ci 43 ci ay nit yi nga xamante ne ñoom lañu ñu njort ñoo def bii li ñaawteef yu ñu teg loxo ñu ràññee ci benn jegeñaale ci seriñ Modou Karambake. ñeent fukk ak ñett ñoo xamante ne nii. section de recherche daf leen a jàpp. di leen waaj jébbal procureur de la république. victime yi ñu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ñu ci gën a bëri nekk ay ndaw ñu ràññee ci nag juróom ñaari mineur ak benn xale bu jigéen ñoom ñëpp seen wér gu yaram demeewutoon noonu victime yooyee sax jot nañu leen délivrer ba médecin yu gendarmerie nationale jël leen en charge Abdourahmane Diallo di jokk ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. muy euh, lu doy waar réaction bi nga xam ni mooy réaction diwaan bu Cheikh Modou Kara Mbacké nee na gendarmerie euh, fekkul benn yoon drogue ci centre de redressement yi nga xam ni euh, foofee la lañu nii fekk nañu fay nit ay ndaw lañu fa fekk ñu leen di dressé di leen jubbanti ci centre boobee xëy na état yi ñu leen fekkee yooyu waaye du drogue Euh, actualité politique euh, Déthié Fall nekkatul vice-président bu parti réew mi Rewmi ti nañ ko démb ci benn réunion secrétariat national bu ñu doon amal ñu yaatal ko lool ci coordinateur départementaux yi réunion baa ngi amee ni ki démb fële ci diwaanu Thiès Idrissa Seck moo ko jiite woon euh, nga xam ne officiellement daal di nañuy nag gën a feddaliwaat seen ànd ci benn Bokk Yaakaar muy mouvance présidentielle ni ki itam euh, un mois ngi nii bu ngeen fàttaliko député bi di euh, de ci Fall demul woon ci assemblée nationale ginnaaw bi mu daal di dem ay question nag yitteel askan wi lay kët yi muy càgganteeg nguur gi ak na saxtem ci wàllu immigration clandestine ni ki itam euh, ci njëndum gerte mi ci ba ñuy def examen projet budget bu ministère de l'agriculture ci la xam ne moom Déthié Fall euh, li nga xam ni mooy euh, jalgati nguur Macky Sall def nga xam ne vision moom Macky Sall paasewul jëm ñaajo euh, da ko war a weesu nag dem ba fleuve bu Sénégal gis li fa askan wi jànkuwanteel politique gu mbay mi nga xam ne dafa lajj lool ci kàddoom yooyu mu yëkkati itam daal di nay recadré waat ki nga xam mooy seen kilifa ci àndandoo bi dox diggante réew mi ak Macky Sall mi parti réew mi ak parti APR. lu mooy loole itam mu daal di joxe xalaatam ci cooxe gi nga xam ne Sénégal cooxe na ko ak nga bin wu gasax wu Macky Sall communiqué bi nga xam ne jeexal na liggéeyu secrétariat national bu parti réew mi nag ci la ñu leerale loolu le muy ñàkk and gi ñu ñàkk ànd ci propos yu Déthié Fall jël dogal daal di koy dàq ci seen parti boobee joxe ñu seen xalaat itam ci tolluwaayu réew mi ci Covid 19 ci ay sensibilisation yu ñu jëmale ci Sénégalais yi. réaction ci Fall mi nga xam ni euh, nekkatul léegi numéro deux bu parti réew mi nga xam ni euh, musta euh, lem làmbañam ci poosam bu gisee dëgg ngir wax ko lu may loolu itam sa musta sàkko lenn ci parti boobee di réew mi liggéeyam fu mu yegg mook fa yóbbu du post député du post ministre du laneen noo xamante ni bii mus na ko sàkku mbaa mu bëgg ko ci wàllu boobale kon yëf yi am na kàddu yoo xam ni mbetteel la ci moom lu mooy loolu itam euh, député yi démb saxal nañu projet de budget bu ministre bi yor lu jëm ci wàllu santé ak action sociale ci atum deux mille vingt i un nga xam ni yegg na ci ñaari téeméer ak euh, fukk ak juróom benn ci ay milliards ci franc CFA am na kan ak yokkute gu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay milliards ci franc CFA bu ñu sukkandikoo ci atum deux mille vingt kon ren moo ëpp fopp lu mooy loolee Abdoulaye Diouf Sarr def na engagement ci kanamu député yi ngir défendre budget ak lay xemmemtee fam ci wàllu boobu itam occasion la mu lancer walla message ci population bi ñu respecté li nga xam ne moo di mesure barrière yi ngir mën a aar seen bopp ci wopp ji di Covid 19 ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr. mais wax nañ bu baax lu jëm si pandémie bi ak li xamante ne ñu ngi koy sentir ñetti fan yi mujj dafa mel ni effectivement feebar na ñëpp wax pour que sénégalais taxaw pour véritablement bañ a dormir sur pour que feebar ñu wàññi ñu ngi am yaakaar ne di doon deuxième vague mais nañu taxaw yokk xeex bi mel ni bés bu njëkk bi si wàllu vaccin bi wax nañ si vaccin covid bi Sénégal dafa bokk si benn initiative COVAX boo xamante ne dëkku àddina yi si bëri ñoom ñoo si nekk OMS nekk si jiite effectivement mbir mi donc loolu bu sottee rek ñu réew du nekk si gannaaw par rapport ak possibilité vaccination du lay Diouf Sarr wax na itam ci hémodialyse yi ak seen kit yooyu nga xam ni dañu doon wax ni daa manqué fan yi ba ñi amoon woppi jalis commencé tiit lool wax dëgg yàlla ci seen ëllëg nag nee na euh, manqué wul waaye dafa amoon tuuti jafe-jafe ci wàllu indi gi fii te lépp teguwaat na ci yoon ak fournisseurs yi nga xam ne ñoo koy jox Sénégal ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr. waxtaan nañ dem boo xamante ne jëm na si li ñuy wax euh, pathologie rénale wàllu dialyse fan yi passé gisoon ngeen waxtaan bi bëri si dëkk bi par rapport ak rupture kit de dialyse wax naa fii si biir hémicycle loolu musul am gis nañ benn malade lancé appel si réseaux sociaux yi mu nekk benn vidéo virale boo xamante ne ñëpp dañu yaakaaroon ne catastrophe am na loolu nag day toucher sensibilité sénégalais mais en vérité amul woon rupture amoon na tension rek si yenn centre yi kit yi bëriw fa ñu jël centre yi ñu xamante ne amoon na kit yoo xamante ne bëri na indi leen foofu fournisseur bi rapprovisionné affaire yaa ngi dox boobu ba léegi mosul am benn rupture tey jii ci suba ministre bi wax lu jëm ci wàllu eau ak euh, ki wax wàllu environnement développement durable ñooy jàkkaarloo député yi défendre seen budget ci atum deux mille vingt et jafe-jafe yi nga xam ne moom la secteur pêche bu Sénégal di jànkuwanteel nappkat yi nekk fële ci diwaanu Saint-Louis wax nañu jafe-jafe yooyee ak itam licence yi nga xam ni jox nañu ko étranger yi ak euh, promesse financement yu jigéen ñi nga xam ne ba léegi respecté ko ak yeneen yu lompoñal secteur napp bi bu ñu sukkandiku ci Arona Moulay Gaye mi yor seen kàddu ñu teewlu ko Babacar Niang ñun acteur de pêche fi ñu toll nii lu bari dafa lënt nag dañu bëgg président de la république moom na génn mu waxtaan ak mool wax ba xam contrat boobu validé nañ ko bu loolu weesoo noo ngi wax naan financement yi naan noo ngi financé jeunes financé wu ñu fi kenn lan lañ fi nekk formation nañuy defal nit ñi bu ñu paree saxaar la yóbbu la mais mool yi fi ñu toll nii pour président Macky Sall si boppam bu bëggee sauver napp gi lépp loo xamante ni mi ngi koy def si napp na si woo ak acteurs yi dafa mel na Sénégal pêche industrielle bi nañu gën favori pêche artisanale bi te soxla nañ tamit liste bi nga xamante ni mooy bateau pêche industrielle bi mu publier pour acteurs de pêche yi man xam yan bateau noo nekk seen ñaan président de la république ni ko bël bi nga xamante moom moo fi nekk nu teg première pierre bi ensemble bi te suñu wàllum sécurité dañ koy gën a wax ministre bi ak président bi nanu gën jàppale moolis fii si ndar si wàllum sécurité si marine si bël bi lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ci ay million ci francs CFA mooy montant bi ñu financé euh, ñeel rescapé fanweeri rescapé yi nga xam ni dañu mucc ci immigration clandestine te seen gaal suuxoon ñu dëkk ci diwaanu Mbuur boole ci itam jox nañu leen lu toll ci lu toll ci euh, juróomi pirogue ay gaal nee nañu yoo xam ne fibre vert la muy gaal yu méngoog jamono yooyee nee nañu itam ñu continuer campagne nationale de modernisation du parc pirogue euh, piroquier au Sénégal muy yeesalaat gaal yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal am na benn forum boo xam ne forum de l'emploi la ñu amaloon ko fële ci diwaanu Njaga ñaaw ngir ubbi ay opportunité ñeel tout tànk yi ci wàllu financement yi nga xam ni jagleel nañu ko ndaw ñi euh, ñu mën a toog liggéey fii ci Sénégal ba tey ci wàllu xibaar ñu dem ci euh, bitim réew ki nga xamante ni bi moo di ñu commencé ko ci Mauritanie euh, waa police daal di nañuy bàyyi démb ñeent fukk ak ñaari nit yoo xam ne interpellé woon nañu leen samedi bii ñu weesu ca Nouakchott dañu doon participer ci manifestation pacifique boo xamante ni bii xëy na dafa boole woon ay veuve ay jirim euh, muy ay jatu rek ay jirim ñuy réclamer justice ginnaaw victime bi amoon ci affrontement 1989 ak 91 nga xam ni dafa boole woon euh, mauritanien yu ñuul yi ak euh, ñi nga xam ni ñoo di naar yi loolee ci jamonoy euh, nguuru président Mohamed Ould Abdoul Aziz la woon doon gouverneur réew mi 2008 ba 2009 euh, baalu woon na leen wante itam dañ leen digoon ay ndàmpaay yoo xam ne itam exigé woon nañu ko di ko fàttali kilifa yi li tax ñu defoon boobu les manifestations ñu teg ci ñoom loxo ab lim mujj nañu leen bàyyi. ci Nigéria am na benn attaque bu doy waar bu am ci samedi bi ñu ko def te ay jihadiste ci état bu euh, Borno. téeméer ak fukk ak téeméeri ak fukk lañ fa rey ñoo fa dee ñu ëpp nag ci ñoom di ay civil ay rey yu xaw a doy waar loolee nag tax na ONU daal di euh, tuumal responsable bi jihadiste yooyee nga xam ni euh, dem nañu itam ci may Maïdougouri foofee itam bilan ba diis na lool lu néew néew ñeen fukk ak ñett rey nañu leen ba noppi nag euh, ginnaaw bi démb ci dimanche bi lañu leen suul muy ay massacre yu méttee métti yu xam ngeen ñaare xeetu rey yooyu ñu leen di def day xaw a métti lool démb calme dellusi na ca Éthiopie ci fi nga xam ni moo di euh, Mekelle euh, nekk capitale bu province bu Tigré bu ñu sukkandiku ci croix croix rouge nee na ñu euh, xeexoo ya fa nekkoon am nag dal ko su lëf la mu la mu indi nag ci ay njombe bëri na lool muy ay wayloo làqu yoo xam ne xajatuñ ca gox ba ñuy sauver seen bakken tax ñu daw ñu ci ñoom nag daanaka néew na xayma euh, lim boobee nga xam ne ñoo fa bàyyeekoo ñëpp doon ay victimes way daw làqu ci xeex bi am foofe ca Éthiopie fukki simila ñeent moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. voici trafic foo leen féete. voilà merci beaucoup El Hadj ñoo ngi sur la route nationale di wax ne rek ñi nga xam ne ñoo ko choisir. jaare doore ko nag pos caaxoy fi nga xam ne doore ko plutôt Fass Mbao Sicap Mbao jàmm gën jakta foofu la yow amul jafe-jafe tranquille par contre tabla Tivaouane vers pos caaxoy foofu la moom c'est saturé ay jafe-jafe neen la ndax fi ngeen dépassé rond-point rond-point aussi li nga xam ne ñooy génne du côté centre Sakura jaaxee ko marché caaxoy foofu la aussi yéex na ndax fi ngeen bi ginnaaw aussi xaar leen des lenteurs ne morale Kouthia Faye jàpp rond point sud foofu la aussi yéex na te yoonu yaraax bi aussi donc des lenteurs mu ngi leen fay xaar rek masse centrale au poisson jëlee ci cafétéria foofu la aussi yéex na lool naata rek ngeen dépassé e ak ci foofu la élage Actu Sport football baymant la ñuy ànd ci xibaar yi sport salaamaaleykum. aleykum salaam El euh, am ci euh, fii ci Sénégal ak génn àdduna Pape Bouba Diop. waaw loolu nag euh, ni ki démbal am foofu ca Lyon France gannaaw nag feebar bu ko tëraloon Pape Bouba Diop nag wuy ji na boromam foofu nag ca Rufisque HLM foofu nga xam ne foofu la fekk baax daanaka nag naqar ak tiis lañ fa nemmeeku gannaaw ba ñu annoncé boobule nouvelle ñu fekki fa kii di Cheikh Ahmed Diagne Seck. Pape Bouba Diop génn àdduna àndoon nax dal noppi woon ba jaaxal ñëpp premier buteur sénégalais ci phase finale bu coupe du monde moom ku yar woon la. Soukeyna Diop du ma jooy dama koy ñaanal yàlla am na yar am na teggin mosuma dégg fu ñu moo waxee lii wala moo def lii asale man fi laa feree kenn mosu ko atte booba keroog ba mu signé xaas bi mu jëkk am dafa ñëw yaayam la ko jëndal ba mu jeex naka yaay loo bëgg. suma école football moom laa ko tuddee si li mu def si Sénégal moo tax mu tuddee ko beneen bi ba mu demee Europe ni fàttewuñu fàttewul kenn même corrigé koor da daan indi kër ku nekk saako ceeb diwlin suukar lépp pratiquement lépp tam xarit da daan jënd ay ay nag élevage ñëw indi ko fii. ci quartier mu judd ci seen bi ak génn bi daal di woon sax tàmbali. sama daaw ñoo def loolu lépp ba premier jour bi muy dem di signé fulam dem Suisse lépp lépp mais damay sant yàlla bu baax a baax a baax li ne ci xolam xam naa ko ak yéene gi mu am ci ak yi mu am ci ay mbokkam am ci ay xaritam parce que feebar bi du tey te yàgg na jaamu yàlla daa bëgg na ko. li ma gën a marqué ci li ma conseillé mooy daf ma doon wax comme football nga bëgg def ko métier yaa ngi dugg si métier bu gën a métti ci métier yi après ma góorgóorlu si aspect yi moom sa wax yëpp ma góorgóorlu ci ba après alhamdulilah Pape Bouba Diop toll woon ci ñeent fukki at ak ñaar mu ngi faatu fële ca réewum France ca Lyon gannaaw ba mu feebaree mu yàggul lool néew ba nag ñu ngi koy xaaran ji ci diir bu yàggul dara fii ci sunu réew te des di jooy doomam ba gën a ràññeeku Pape Bouba Diop bàyyi ci ginnaawam benn soxna ak ñaari bant Chameti Jan Seck te géej FM Pape Bouba euh, kii mu daan àndal di football kooka joxoon bal ba mu dugal ko ci mondial yi 2002 ya jëkk dugal but ci mondial yi El Hadji ak euh, Fadiga Alassane Ndour ñoom ñëpp def nañu def nañu ay kàddu yu yëkkati. waaw ay kàddu yu yëkkati mu nekkoon nag ku dal am yar lool nekkoon nag ab gaynde ci biir terrain bi bu ñu sukkandikoo comme ni ci El Hadj ko paasoon bal bu taxoon mu dugal nag match bu njëkkoon ci coupe du monde 2002 diggante France ni ko noonu tamit Alassane ak kii tamit di Fadiga kii tamit di président fédération bu football euh, di maître Augustin Senghor yooyu la kàddu la yëkkati dénk ko kii di Soxna Fall. gaynde de gaynde de noppalu. sama frère boobu sama frère de combat nga xam ñoo ànd defandoo lépp li ma koy ñaanal rek mooy yal na ko yàlla yërëm yal na ko suuf sa si kawam ay ñaan gi war ko fekk fa mu nekk Sénégal pa bu ba desee letu leen moom dara nekk tiis rëy pour génération 2002 rek waaye pour Sénégal yëpp ndax euh, dafa nekk koo xamante ne dafa xeexal dëkkam dafa nekk ambassadeur ràññeeku ci coupe du monde bi wax dëgg yàlla mu def doy waar man lu ma mën a jàngat ci loolu rek mooy bu baax tey li ñuy jàpp rek mooy ne Sénégal yëpp a ñàkk Sénégal lépp am méttit parce que Pape Bouba moom ak naataangoom yi nga xam ne ñoo doon ni ñuy waaye génération dañoo def loo xam ne lu mucc ayib la ñëpp lañ ñu ngi koy fàttaliku ñëpp ñu ngi koy waxtaane génn Sénégal tukki lu ci bare loolu lañ lay fàttali mu nekk moom ci boppam jëmmam boo xam ne biir naataangoom yi wane woon na xar kanam boo xam ne bu fës la woon mu nekkoon nag ci terrain bi gaynde boo xam ne kenn ñemewu koon mais ci biti nag mu nekkoon nit ku dal ku sedd nañu ñaan yàlla xare ko àjjana di jaale famille am jaale Sénégalais yëpp di wax ne Pape nag waruñu ko fàtte nañ ko gunge fexe turam des fii si Sénégal. Pape Bouba euh, nekkoon ku dal marqué tamit histoire football bu Sénégal ba tax na nag euh, kii di euh, ministre bi ñu tënk wàllum tàggat yaram di Matar Ba jàpp na nag ab modèle la ci biir génération ñu teewlu ko ak Soxna Fall. d' abord dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko ajal bi ñu ko déggee am nañu métti jullit wala ku gëm boo amee métti day dellu ci borom ak Bouba Diop ndaw la woon nekk sénégalais boo xam te ne béy na waaram ci tool footballeur la woon dem na équipe nationale mais ñëpp d' accord ne ku gëmoon boppam la bëggoon réewam la ku du loon ci li mu daan def la waaye ko amoon yar la nit la woon ku marqué esprit Sénégal moo tax koo tudd Pape Bouba Diop rek ak foo ko mën di tuddee ñu xalaat bi ba mu dugaloon contre la France waaye ñu jàpp ci li mu daan def li nga xamante ne mën nañ koo jox ndaw nekk équipe nationale wala ngay def tàggat yaram boo ci nekkee war ngaa am yar war nga am détermination war nga am patriotisme. di fàttali nag euh, lu jëm ci équipe nationale bu Sénégal sax moom mi la di Pape Bouba Diop nekkoon fi ab milieu de terrain jot na ne euh, am lu toll ci 63 match dugal fi nag euh, fukki but ak benn. ci atum 2002 ñu jàppoon sax moo nekkoon vice champion d'Afrique euh, di ko fàttalik Sénégal ak euh, ñii di waa Cameroun ci final ga foofu ci Mali jël tamit euh, coupe bu Angleterre foofu ci Angleterre ak Portsmouth ni ki noonu tamit nekk finaliste coupe d'Angleterre ci atum 2010 gagné lii di coupe bu Grèce ca Athènes di ko ñaanal rek suñu borom bi xaare ko na àjjana Firdawsi fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee demee na ndaw lool yal na eggale ndawam ci fa mu jëm Pape Bouba yàgg na sagal Sénégal tournoi UFOA A CAN U20 Sénégal ñooy final. non finalu lañ nag ni ki ah, démb waaw kon nag démb Sénégal moo mujjee nag euh, daanu ci kanamu waa Gambie gannaaw ba ñëw fule hmm. cent vingt minutes waaw ku nekk dugal sa morom nag euh, ñaari but waaye nag ci teg dóor ya si la nag euh, Sénégal mujje ñàkk ci kanamu Gambie ñeent ci ñett mu nekk nag jongante goo xam ne tax na ba Gambie nag moo fas yéene teewal kon zone ouest A bu Afrique fii foofu ca CAN U20 ñu fas yéene ko amal ci at ci atum 2021 foofu ca ma ci weeru mars ca Mauritanie waaye nag ki leen di tàggat di Youssouf Dabo di xam ne nag ak nekk Sénégal yi amuñ nag benn démérite bi ci boobu la jongante ndax nag dem nañ ba jeex ñu teewlu Youssouf Dabo ak kii di Soxna Fall ñu loon foofu ca Thiès. football da des fois en doute, mais il faut être capable de tirer en tout cas les enseignements. Mais il faut la mentalité qu'ils ont, rien lâché trop bout parce qu'à deux fois, mener au score, ils se sont battus, ils n'ont pas abandonné, ñëw nañu ba égaliser par moment aussi def nañu ay affaire yu bon et baax mais yooyu yëpp des fois coono moo koy indi te coono bu ñëwee moom